naa baax Elimane Lam waaye dama dañ ma koy bu ma ko bàyyi dañ ko jox réew mi dañ ko jox réew mi Elimane Lam dañ ko jox réew mi ah, waaw waaw man la man la ko yor de yow la ñu gëm yow la ñu gëm yow la ñu gëm yow la ñu gëm yow la ñu gëm Bara bara bara. xoolal xoolal indi baal ci ginnaaw laa ko def ko ci ginnaaw. kenn du kii kenn mën a dimbali kenn mën a jàppale kenn mën a jëli. président Elimane Lam yàlla bu yomb. grand man fi may ne góob nga gën Monsieur Mondial Sissé, Eliman Lam. On va donner le coup d'avant. Si c'est bon, Malikando, le micro est là. Aïcha, on est également la présence de Amadou Fall, le fils du président de la République, son excellence Macky Sall. Voilà donc pour la finale. Baragaï est également demandé ici. le maire de Yeumbeul. On va procéder à la présentation des finalistes pour l'ASC Colobane Amitié Point E. Xale yaa ngi nii taxaw. Voilà, Ok, on va démarrer. Colobane Amitié point E. Alexandre, oui. maa ngi seet ci kaw grande yi waaw maa ngi seet ci kaw grande yi. Modou Xale Modou Xale Lo. Dakar.

Monsieur le maire, Sicap Liberté 6 Souleymane Camara léegi lay nuyu bu baax a baax moom tamit di Sicap Liberté 6 léegi daal juróom ñaar bu ko doon ñëw moom ñaar

moom ñaar mi ngi doon jëm ci waa douzième gaynde néew ca ak ñoom moom ñaar mi ngi jëm ci douzième gaynde les parents sont demandés Paos Pando joyeux anniversaire mon frère Paos Boubandour et tous les parrains sont demandés. Merci beaucoup, Papa Diouf. L'élite vocale de la génération sociale. Inima, la jeunesse sénégalaise est contente. Le siècle est content. Merci beaucoup, Inima. Monsieur Boubandour, il est demandé. On peut voir au secrétaire de l'Assemblée, s'il vous plaît. Le parrain, monsieur. artu maire de Dakar mooy ñëw. artu ah, maire de Dakar mooy ñëw. bàyyi leen ko mu jàll. artu ah, maire de Dakar mooy ñëw bàyyi ko mu jàll. artu maire de Dakar mooy ñëw. doomu nekk. waaw. dafa aju doomu nekk Diaspora dafa aju.